bu ma amee économie am na étudiants yoo xam ne ñi ngi fii Grand Dakar yor seen immeuble am di dund ay jafe-jafe bi ma njëkk a bi may war a njëkk am moom mooy ñëw xool ñoom ci lan la ñu nekk ci nan la ñuy dundee looloo taxoon tey ma ñëw fii parce que ku ci nekk wax nga li nekk ci yow ñoom wax nañu li ñuy dund jafe-jafe yi ñuy dund sans gêne man tamit wax naa leen li ma xalaat ci jafe-jafe yooyu euh, ba pare ba pare jox leen ay orientation pour pour l'avenir pour pour dans le futur nous pour nous gagner une situation yi nga donc damay profité ci de tamit pour lancer un appel vraiment aux autorités étatiques de Thiès euh, collectivités locales conseils conseil les mairies nous appuyer vraiment les étudiants parce que les étudiants les appuyer c'est appuyer le pays parce que nous sommes les futurs cadres de ce pays c'est les futurs présidents de la République c'est les futurs ministres c'est les futurs directeurs c'est les futurs chefs d'entreprise c'est les futurs professeurs donc nous, il faut les appuyer pour qu'ils soient dans

pour que ñu euh, ndimbal tamit mën di ñëw ci ñom quoi pour que ñu nekk dans de très bonnes conditions en tout cas ma ngi leen di féliciter ci courage bi ñu am parce que li c'est pas facile nga nekk euh, ci kër go xamni par exemple dañ lay menacer d'expulsion ba paré amo ndox suñu sama jigen ñi sama doomi ñom ñoy ñooy premier ba quatrième étage pour yégué ndox lolu wax deug yalla metti na metti na metti na metti na ma ngi leen di encourager bu baax di leen féliciter di leen wax ni lii daf leen di jàngal àdduna donc di ngeen ko weesu dinañ dem ba nga xam ni lu ñu nettali lay doon donc ngeen muñu rek góorgóorlu ba pare di travaillent dans l'unité Ils def bloc blocs pour que nous mën affronter tous problème problèmes xam ne na je suis en phase avec vous et je suis euh, vraiment votre partenaire euh, sachez qu'à chaque fois que vous aurez besoin de moi moi je serai là à vos côtés pour vous soutenir. Euh, di am contentement bu baax di am suis aussi tay dalal ki nga moy docteur Sar, fini ci Grand Dakar ci immeuble étudiant est mobile bi nga xamante tay l'ensemble des étudiants thiessois yi nga xamante ñu ngi nekk à l'université université Cheikh Anta Diop ak dans les écoles de formation fi lañ nekk ñu fi doon nak dund nak vraiment ben crise mu doon lo xamante situation bu doy war la bu jéggi dayo parce que buñu togué euh, fi nga xamante tay ji ni ay 40 euh, quarantaine 50 étudiants ñoo ñoo fi nekk dëkk fi amuñu fuñu dem amuñu ben parent Dakarou amuñu fi papa amuñu fi yaay tumuranke lol ñu tok nous génné wala bañuy waja génné ñu tok ñu coupé ñu ndox di fi dund situation yu lolou ki nga tay moy docteur Sarr def déplacement dérangement ak temps ni mu ak ni ni ko ak programme ni chargé mu def sacrifice bi yépp ñew sét suñu kon vraiment content content nañ trop. li day doon lo vraiment. dafay dalal suñu suñu suñu xel di lancer waale un appel solennel à l'endroit des concernés ñi nga xamante ne tey jii nii ñu ngi Thiès nekk tey jii soit ay acteurs politiques soit nekk ay bonne volonté ñuy roy si lu mel nii parce que euh, yaakaar naa ne docteur Sarr euh, dafa ñëw rek emprunté même dynamique bi nga xamante ne am na ñoo xamante ne aussi tamit jaar nañ fi jàppale nañu loolu ci loolu ñu mën see lim ku mel ni tey jii nii si comme responsable. ñu mën si lim ku mel ni Maodo Malick Mbaye

politique tey jii nii mooy fexe euh, jàppale population bi bañ nekk à l'abri du besoin kon euh, vraiment daal li si kanam raw li bët tey jii ambition yoo xamante ne c'est au niveau de Thiès mënuñu lu dul tamit vraiment euh, am reconnaissance si si moom ci acte bi nga xamante ne def na à notre endroit à quoi faisant mooy accompagner ko pour une collaboration sincère et franche